salaamaaleykum wa rahmatullah yéen kilifa yi fi teew sëñ Mor ak sëñ Jili ñi ñu àndal ngi leen nuyu di leen siyaare di leen sant seen taxawaay bi ngeen taxaw ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi ci yàq liggéey ak yaatal gi dañ ci ñaanal ndam daan na ngërëmul sëñ Tuubaa li ñu doon sant sëñ Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal taxawaay bii mu taxawal sëñ Tuubaa jiite njaboot gi yàlla yàggal ko fi te may ko ndam tam am ci ngërëmul sëñ Tuubaa dañu ànd koog moom ginnaaw loolu nag xam naa kàddu yi mën naa bañ a gudd ñun li am solo hmm, li ci ëpp nañ ko dañuy se indi ay seera rek xam ne da ko aajowoo ci anam yu bari ndax fii suñ Mbàkke Buso dafa am mbind ci batale yi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa batale woon bëgg ñu defal ko ko yett la woon moom la suñ Mbàkke ak dem Màkka boo xam ne lii naal na ko waajal ko ba am ñu woo leen ba wax leen ko risques yi ca xew yëpp bokk nañ ko xamandoo boogee joojee maam woowee maam Cheikh Mouhamadul Fadal ak maam Cheikh Anta ak sëñ Mbàkke Buso mataloon nañ ko ko mooy ca topp mooy jumaa ji jumaa ji it ci Cheikh Moustapha ba fii ñu toll ci Cheikh Abdoulaye ba ci Cheikh Mamadou Lamine Cheikh Sidi Mokhtar kenn ko ni jëf nga ci jëf ju ko bu ji ñëpp gis mu ci loxo yi Sëñ Fallu ak nañ nañ ko nañ doxe ak liggéey la ci Sëñ la def ci yokk ak daal di kaamil yëpp muy naalu ñaare la njiital wi di daara ji nga xam ne moom tax a jóg daara ji nag suñ mbokk yi ci boppam dafa bind wax ne madrasatun takunu rahlatu Sénégal ilayha min ulumi al arabiya shar'iyatiha wa alatiha moo ko waxal boppam waqad ahadda laha kutuban laa tuujadu inda xayri ci mbindum si Mbàkke boobu solo loolu yi jóge wax na daara joo xam ne ni Sénégal ak biti Sénégal ñëpp dañuy laxas jëm si ngir sàkk xam arabiya ak sariya ak jumtuwaay ya ñuy àndal te nee na sëñ ku tedd ki waajal na ko ay téere nga xam ni ci yooyu jamono kenn mënu ko fekk fu dul fi fi sëñ bi téere yooyu ci nettali yi wax nañu ne bañ ba ba long diir këyit moom dafa yomba yàqu bañ ko seete fekk këyit ya am am am ay ayib ngir yàggaay ba ak saytu ba mu gisee agsi ci suñ jamono ji niñ koy saytoo ñu fe ñu ñu daal def foofu yi nga xam ne mooy teen bu si liggéey bi moom si teeram si ñëpp xaalis bu bokk ci la si ñëpp xaalis daa defee jël ndox mi nga xam ne ci lay mm, jëfandiku ñëw lañ fi nekk teen boobu ñu ngi ci penku jumaa ji ci wetu penku barabu Sëñ Abdu Xaadir bi digg ma barabu Sëñ Murtadaa teelum teen boobu fi ne wax nañu ne téere yi foofu lañ ko gasoon def ko fi fi teen bi dégg naa ko ci ay riwaay bare xaw bari Cheikh Mahmoudul Muntaxa nag yàlla ndax saalihaatul awlaad min mutimmaati saalihaatil waalidayni hmm, tawfeex ji ko yàlla defal bi mu agsee fekk naal yooyu wu ci ne mu dox ci lañ ca dox ba mu agsi fii mu agsi naalu ñetteel wi euh, ji li tax naa lu ñetteel suñ mbokk daa bind wax na suñ mbokk bu suuf daa bind wax na wa innama sakata anil madrasati li kawniha taabiatan lil masjidi fa qaddama talabahu ala talabiha nga xamee ni bi daara day topp ci wala jàkka bañ ko defalee naa lu jëkk ba muy kilifa yi tàmbali ci am mustaba ci suuf ñu ñep ñu yëngu ci juma ji ba mel ni mo war mel Cheikh mohammed mohammed Muntaxa mu tedd mi yàlla dogal mu ñëw tok al alim taqiyul awra borom xam-xam nga xam ko ragal yàlla al imaam al murabbi alladi laa yazaalu daa'iya salaaxi wal falaax di limaam di nga xam ne ab yarkat la ndax di mujj rek day yara boo ko gisee rek ah, boo doon defar sa bopp danga danga da ngay defar sa bopp mu mel ni mu mel ni moom di woote kat bu jëm ci lu yóbbu nit ak texe ak ak aw ak yiwe te ko xam ki kii daa tànk ci leeri barkey sëriñ Tuubaa yi te don ko deg junj yi nga xam mom la mom la sëñ bi junj xam jëm ca nda da xam ne nag naa ñettel ñetteel moy dara daara mu tikkee mu daal di koy song rek def ci lim ci def ci ay milliards liggéey ko moom ak si fii da wax ne euh, moom laal suuf na ñëpp jàpp moom laal suuf loolu moo di bu ko tabaxee ba mel nii dañuy ñaan mu jiitu ko lu yàgg te it euh, noonu yi Sëriñ Tuuba waajale woon téer yi la waajale ñi nga xam ne ce cay ñoo cay liggéey ndax sëñ bi lan lu ne waajal na ko ku ci nekk te di ci yëngu rek sëñ Tuubaa la ca boole loolu moom yàlla na yàgg lool te ñu liggéey ci kanamam daara ji liggéey bu yàgg lool na ko sëñ Tuubaa bëgge loolu moo moo indi daara ji feeñi ci bi feeñi ci ay loxoom ndax sëñ Abdulaay ñi nga ne ginnaaw bu sëñ Fallu doxee loolu yi mu dox moom moom Anta ak sëñ Mbàkke Buso bi bi liggéey bi àggee ñu tàmbalee ci moom ba ci suuf ba ci moo moo xam Cheikh Sidi Moxtaar ku ci ne jëf nga ci jumaa ji loo xam ne lii lépp lu ñu teg daara ji daal di ñëw nag daara suñ mbàkki woon faqad dama talaboo mu jiital yooyu ci sàkku bu ñu agsee nag mu dib cëram yàlla jàppal mu def ci lim ci def ba man lii mu mel mu toll ci war ubbi nag ubbi googu la ñuy yëgal mbooloo mi moom ñi nga xam ne ko waxee it dafa ne ci diggante yaari xew-xew xew-xew Porokhane ak xew ba tax na ñu ko war a rek ku ci mën a rek nga teew ci loolu daal mooy li nga xam ne hmm. moom la ñu bëggoon ay ay kàddu te xam leen rek am nañu rafet njort bu baax ci suñu tubaab lépp lu junj ma mu joxañ ko rek day am kon nag bisieb laat liggéey daal di rëdd fi nga xam ne fi la ñuy def daara ci liggéey ko ba def ben bunt sa Cheikh Saalihu ñëw dox ci lim ci dox Cheikh Cheikh Abdul Qadir yor cërub jumaa ji liggéeyal ci Sëñ Tuubaa li mu ko ci liggéeyal ñu topp ci moom kenn ku ne jëf li nga jëf mu nag daara ji muy cërub Cheikh Mouhamadul Mountakha yal na yàgg ci ay loxoom ñu liggéey ko ba mel mu mel ñu ñaan nañ ci bisu ba ubbi ci bismillahi rahmaani rahim liggéey ci Sëñ Tuubaa def ci loolu lii moo suñ ne daara joo xam ne ji dana laxas jëm si ci Sénégal wala xawla ak li ko lépp ba bitim réew lu waaye soxla ci xam-xamu diine mbaa xam-xamu arabiya ay jumtuwaayam ak lépp am na fi fàggu nañ ko kon nag sant sëriñ bi te di ko ñaanal lan na fi yàgg te wér ñi koy jàppale it yal na leen yàlla defal ndam ñu ànd ak sëriñ bi mu ànd ak sëriñ bi yàlla may ko wér ak ko yàgg moom def ko ni mu ko bëggee ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah